asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñuy suivre ci Equivox TV tey nag xam ngeen bés bi mu doon tey ñu ngi dimanche 7 novembre 2021 ku ñu fi woo mooy Baba Diaw borom Thiam production ngeen xool public bi noonu ni ñuy ràññee di dugg cee saat bi double moteur Quench maanaam lamb ji tey képp kuy amateuru làmb doo ko bëgg a raté ndax ñaari mbër yi ñoo toll noonu double moteur. xale la boo xam ne am na fu mu bëgg a dem te fi mu bëgg a dem jàpp na ne Quench moo ko fa mën a yóbbu te Quench dafa bañ loolu parce que daa jàpp ne sax moom lamb boolewu leen leen waaye nag garab la ci kaw lay fekkante xëy na xale baa liggéey ba tey mu war ko jël Habib boo xoolee nii rang bi noonu nit ñiy dugg noonu yaa ngi dégg nit ñaa ngi dugg gis nga noonu jaakati sandi si nga seen police yi ni ñuy visiter gars yi doo fi dugal lu bokkul ci maanaam li ñu bëgg sécurité totale lañ fi soxla loo gis tey environnement làmb ji nga gis nii mbooloo mi ak moto yi oto yi ñëpp rang bi. Euh, Babacar ginnaaw bu ñu sant yàlla jëlu sirante bi euh, sant suñuy ñaari waajur du nuyu sénégalais yëpp ah. Euh, di félicité Arafas ki ñu doon bëreeg dimanche di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jik di encouragé suñu bopp di wax tafaane ko làmb nii la. yàlla moom bu la mayam war na la xañ suba bu la xañee tey tamit dina la may suba kon na xaar lu neex li mu ngi ñëw bu mu yàkkamte xale la di door a commencé bi mu am ci làmb am nañu commencé depuis kenn xamul nu ñu ko am bokaa bu parcelle mbooloo ah, bokaa benn bi may dégg bu ngay dégg mu ngi am combat non amaguma combat combat bi loo ci wax tey double moteur Quench. maa ngi ñaanal double moteur ndax sama nit la sama lépp la. sa la te nga dëkk parcelle mu dëkk rëbës. parcelle mu dëkk rëbës. Ah. maa ngi koy ñaanal yàlla may dam ndam. ndax waa loolu waa bari ñi géej dinañ ko nangu. non bari ñi géej buñ ko nangu dañ la koy forcer. incha allah la jógee de nee na ñaanal. góor bu jógee man double laa ñaanal. loo wax ci loolu. am na ci droit mais na xam na li moo ñaan tey du sotti. Ah. bu soobee Maulana. waaw double lu mu def ñu maa balaay bu soomam. waxati lii. bilaay walaay. bu soo day maap. day maap carrément. duubul duubul njuuma la. indi tey. waa ah, xanaa la rëbës. waa kër Double Moteur a ngongu. son noir yi. waa bari ñi ay waay waa tënge waa bari ñeeg tëngeej. mat na toj na ko. ku wen sa ngongu ànd ak waa Lamsar. ñoom Daouda Sandis ee eh, waa Xandaalu lamba ngi nii waa ASC Xandaalu saamil barki alxuraan barki alxuraan ki da koy daan saamil a ngi nii su duubul barki saamil saamil bu ne su duubul dem leen ñibbi fi ngeen dëkk dafa xaw a sori dem leen ñibbi fi ngeen dëkk dafa xaw a sori des waaw mu na des des ndeysaan des sa mbari mu na des des ew waay des waaw mu na des des waaw waaw des sa mu na des des ndeysaan tey guddi bari ñi guddi guddi bari ñi. ndeysaan. incha allah guddi guddi bari ñi. guddi guddi bari ñi géej ana waa bari ñi géej. tas samari mu na tas ana waa bari ñi waay. mu ana njoow ana joow joow yi waay. tas mu na tas loo wax li ngay diwoo lan koy diwoo xamoo ko soo bi ni ma koy diwoo doowul ma doon noonu lan kay bu dee ka si suuf. mais duubul am na problème nag ka si suuf. mais duubul am na noo ko man noo ko a bëre. waaw noo ko ji pare. sotte ko waatal ma xool. dégg nga sotte ko. yow li nga bëgg loolu laa lay defal tey ngay kontaan day naan doom day ki dépassé nañu ko billahi billahi ki dañ kaa mu daanu duur mu daanu mbër bi dafa ñaaw mbër bi dafa ñaaw double dafa ñaaw tey dañ koy jàngal bëre tey ji dañ jàngal bëre di nga waa jàppal loolu ndeysaan troisième combat de la soirée Brice moo ñu wan ginnaaw tubaabu joor ngeen jàkkaar lool cey ji làmb tubaabu joor moo ñuul moom ngeen jàkkaar lool biris moo xees ngeen mboolu weex li eh, jël na ko tubaabu joor biris ak tubaabu joor tubaabu joor a yor ngeen lu xonq li biris a ngeen lu weex li xoole tubaabu joor oh mu ngi koy yokk mooy tul xale ba bañ na biris daa yokk loxoom taw na eh moobu na ko takk na ko tubaabu joor takk na ko dinañ la daan da ngaa gàtt ànd nañu ca suuf war ndombo eh Brice Diouf daanu na kat appi tubaabu joor daan na Brice Diouf mbërëm Tiwaawan Pël ma daan na mbërëm école de lutte Pape Diop Boston ma loolu leer na nañ kaay booy ñu dem léegi ki nga xam ne mooy Brice Diouf boo xoolee moo la sut mais fexe nga ba wàcc daw tekk ko mu bañ mu mbot la ngeen ànd nga jëkkante nga jëw ko nga jëkk koo jóg wër ko ndomba daan ko. boo gisee ma yàgg suuf sax damaa jël ko moo tax mais bu nekkul loolu daan na bu yàgg ñun nit ñu toll sunu doole ëpp na ni gannaaw combat bi sax mënuñu maa daan barke sëñ Fallou Mbacke. foo jógee Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh laa jógee ñi ñëpp aw ma seen fay barke sëñ Bamba Mbacke. boo xoolee am na lu mu yor sol mbaxana mu xonq le nag yàgg na koo sol. Quench bu bari ñi billaay doomi lébu la. lébu piir kuwens maa dem ba fekk ko biir tëngéej wala boog biir bari ñi géej na toog ni superviseur mu yor ay document ma bëgg xam document yi pour lan la maa ngi lay ziar aas waaw maa ngi leen di ziar euh, bu baax euh, euh, ah yow loo yore fii wàllum superviseur waa kii mooy feuille de combat bi waaw bépp mbër buy ñëw rek heure bi nga war a dugg si nombre buñ la may nga àndal ko heure bi nga war a bëre lépp mu ngi fii waaw bon heure bi nga ñëw dinañ ko ci def na quoi mais li si des bu amee retard kooku CNG mooy réglé ni kii temps la am lii la am lii quoi mais ñun fu ñu mënee mooy li ma la wax nag mooy heure mbër bi bi mu ñëw lépp dañ koy coché ak ñu mu àndal. kii mooy ku fëgg la Daouda Sandis borom Lamsar maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay fay man la Daouda Sandis rakku fëgg la loolu juumoo lu am la. tey nga indi Quench mu war a dajeeg double moteur double sa rak sa mag la mujj daan biir Lamsar mu mel ni mu nga bëgg a miin kër ga waaw waaw dëgg la daan na suma mag mais tey dañoo ëmb Quench ñëw pour jël si te am nañ yaakaar ne yàlla suñu borom dinañu ko jox. ren ko daan. non dama ne la nañ seetaan ba si kanam lamb la nag am nañ yaakaar dinañ am ndam si kàttanu suñu borom. temps yi foo ne kenn gisu la. waaw temps yi maa ngi si entraînement yi rek di xaar maa ngi déglu fëgal rek ak promoteur yi waaw maa ngi xaar rek maa ngi si entraînement yi bu baax daal di xaar yàlla baax na yow ñoo far. Balla Gaye nu nu mel moom la ñu koy sant di sant mbës ak coach ak Lamine. mais wayuma sa combat bii passé ñëpp dañ la caamere ndax sa lewtoo ba ak niil ba. ki ma doon bëree boobu taxawul mais bi incha allah ci kàttanu yàlla Kalso day taxaw barki yàlla bu taxawee ma dóor ko mu daanu. yow nga do Kalso la de. barki Mbacke bu taxawee ma dóor ko mu daanu man waa Guédiawaye dañ maa yónni yaa xam te ma maa mujjee fël mais man lañ gën a yaakaar. di sant waa Guédiawaye ñëpp di woo ñëpp ci combat bi le 18 décembre pour ñu jàpp. bi nga andi woon bii passe daa mel ni est-ce que dañul. damaa damay damay liggéey coach su may teglu day xëy fajar taal motoom dama entraîné ngoon gi mu ñëw physique ba man ñëw contact barke sëñ Touba lu ñu def da koy def kii coach bu jara ñaanal la barke sëñ Touba yàlla na sa jàmm yàgg barke alxuraan lii daw na yaram. waaw daw na yaram moom borom ñaari gelo yi <laughs> yàlla na sa waaw gis nga mais sant yàlla rek xam nga moom da di ku baax moom wax dëgg yàlla ndax loo wax mu ne la Lamine ay sama lépp moo tax may teg coo daj coono yu bari yu métti si moom sax mais soo ko gisee sax xam ne am na changement te des na wax na dëgg na waa koñam dañoo am yaakaar ci moom. te dinaa ko jàppale wax dëgg yàlla dinaa ko jàppale. kontaan ci yow ko ñoo far Babacar ok. Ndaysaan quatrième combat de la soirée. waa Ndaysaan ñaari mbër yoo xam ne ñu ngi ca géew ba. général Kayre Daara ji ak colonel Seras. colonel Seras nag bàcc Seras la jógee. arbitre ba jox na ki nga xam ne moom mooy colonel avertissement colonel ngay jéggulu beneen parce que arbitre bi mënul commencé euh, auto euh, combat yow ngay def yoo xam ne ay interdit ba nga am trois avertissements donc actuellement bu mu ñàkk na combat je veux dire su fekkente ne kosu Tivaouane Peulh bi donc kosu bu fekkente ne am na vraiment lecture uh-huh. day diriger mbërëm rek jox ko les consignes clair que mu gère ko wax na dëgg waaw parce que moo avantagé ah waaw waaw moo avantagé général Kayre boo xoolee combat bi moo ci avantage léegi ndax adversaire am jël na ñetti avertissement. guy gi mooy bëre nii. non wala boog lu ne ci programme bi général Kayre lañ def. moo remplacé général Kayre. ok guy moom bu poussé adversaire am mu dem ci saak yi avertissement da koy jëlaat muy 4. waaw mais Babacar est-ce que gis nga déplacement arbitre yi. donc dañuy créer li ñuy wax ay angle d'observation pour am ay chute d'observation. déplacement bi demee donc arbitre principal bi dafa doon ko jubbi ji mais rotation bi daf leen eh, na ko tibb na ko ko. jël na ko de ba na ko daan na ko. Ah, waaw bi daan ko xar xar jëbëm bi da ko jaxe préparé. bien sûr donc moo mu sauvé. waaw jël ko donc ah, ba rëy na ko. am na ci lu mu toog maa ngi lay bege ci loo am nga jàmm ana waa bari ñi géej ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah mbër man da damay ziar rek damay ziar rek ci loo ne. nice nice naka bari ñi. alhamdulilah. yaa ngi toog jàpp sa njaam. nice. di di ko enjoy nice. di relax. xaar arbitre soufflé. waaw incha allah yàlla may ñu ndam ñu ñibbi. ndeysaan tey Quench lu mu yëg. ak arène bi bi mooy deuxième fois nga fiy dugg. kontaan rek laa gis say mbokk gis naa bor ñi gépp waaw gis naa si kaa wax balaa bi suuf lu ma dara lu may arbitre soufflé na hey Baye Wale wane ginnaaw Niang Ballo Pikine Baye Wale koy ñu ngay dóorante dóor nañu Niang Ballo dóor nañu Niang Ballo hey Niang Ballo daw na jëli Baye Wale waaye Baye Wale mi wax na xatt de Baye Wale wex Baye Wale wex na xat xeex nañu sànq xeex bu tar arbitre soufflé waat na ginnaaw ardo Baye Wale seetun ardo mook ñang balo xeex xeex droite yaa ngay dal Baye Wali moytul dinañ la dóor nga daanu Baye Wali moytul ñang balo ngi dox sa kaw dala bëgg a jaay doole ah way Baye Wali ñang balo dóor na ko ay korosa yu dala dal xeex ba tar na lool waay jaajëf Dembélé jël ko war na ko ndombo eh waay Baye Waly Baye Waly Baye Waly nañu lu xew luxew lu xew Baye daan na ñang baalo ah way Baye Waly daan baalo gisee baaba yàlla dafa dogal mu doon sama doomu ndey mu doon nit ku baax depuis ba ñuy doon enfant la ñuy bokk liggéey di doon daan suñu doole muy nit ku gore amul ko kenn ko kenn du ko dimbali yàlla yàlla yàlla moo ko boole doomu aadama yi drapeau Pape Samba Ndir la commencé tëgg mbapat lu mu am métier bi moo ko may moom ouvrier la moom menuisier la yaakaaru ko si doomu aadama Doudou Mbaye ñun dañoo kontaan parce que lamb bu ñu demee ba léegi ay xale yu ndaw xale yu ndaw ñoo koy organiser ay xale yu ndaw ñoo koy bëre ay xale yu ndaw ñooy feesal stade bi loolu mooy wane ni xale yi dañoo am wàll ci làmb di ko ba pare xale yu ndaw ñoo koy reporté nañu jàppale làmb nañu jàppale xale yi sponsor yi nañ ñëw jàppale xale yi ñii ñu jar a jàppale lañu amul xaalis amul sponsor xaalis bi muy liggéeyee fële lay jël dugal ko ci làmb yaakaaru ko fenn nañ ñëw jàppale leen ñun ñii lañ yaakaar nañ ñu jàppaleel ñii sonn na si combat bi daw na yaram sonn na si combat bi liggéey na si combat bi Babs liggéey na si combat bi Lamine liggéey na si combat bi. mais ñun ñii ñëpp kenn dootul nelaw. ku ci nekk yaa ngi jéem a fexe lu jaay làmb ji. ku ci nekk yaa ngi fexe lu promoteur bi génnee ci bis bi ñun ñii loolu ñu si daj nañu état jàppale ndax ñun ay doomu réew mi la ñu. bu ñu jëlee suñu temps suñu lépp jox ko réew mi nañu réew mi tamit delloo li nga xam ñun loolu la ñuy def plaisir bi ñuy jox Sénégal kenn joxewu ko lamb rek moo koy joxe nañ jàppale lamb. Baba loo wax ci lii daw na yaram. waaw Babs li ma lay wax mooy nit soo gëmee yàlla wóolu ko nangoo liggéey gëm sa bopp dara jomb la sa àdduna te dama gëm suma bopp nangoo liggéey dama gëm suma bopp nangoo liggéey moo tax may sant amateur ñëpp sant journaliste ñëpp ñëpp a si jàpp jàpp na si bu baax ñoo far Lamine na si bu baax Lamine ñoo far Fadel jàpp na si bu baax ñoo far man du ma gëm kenn ku en tout cas ku ma deful doo lii mooy sport te soo ñu yokkee fit maam dañuy ñeme toujours damay wax xaalis deuxième position la bàcc Serigne naa torop amal jàmm amal jàmm tik tik la sol ay tik tik la promoteur bi sol xoolal li baaba def maa ngi lay bëgg baax ma lay ziar. ci loo ne. sant li nga de. waaw yaa ngi tey xam nga dama sas moo tax. waaw dama sas. yàgg tee max. waaw rek incha rabbi. combat bi mën naa gaaw wala mën naa yéex. lu mu laaj rek dama koy def. lu mu laaj. waaw incha allah ngeen def ko. waaw. loo yëg fi ngi koy sentir bu baax. incha allah waaw. koo koy bris. jaajëf Babacar yow ñëw for. ñaata lakk daan. daanaka ñaari un un la deuxième Balla Gaye un dafa leer nañ dama bëgg ñu leeral ko. yaag moom maag moom. daan naa ko ñaari yoon dama may sens. dala daan ñaari yoon. non non un un la. lu mu liggéey un ah? combat Baboy Balla Gaye ko ma daan ko combat Tyson Bombardier ma daanal ko kon moom fa la ma daanee. foo ko daan Tyson Balla Gaye dama ko tegal seen tournée ko dëpp ko. dana Tyson laaj ko kala arbitre jox victoire. laaj ko kala arbitre arbitre bi dafa def lu ko neex quatre arbitre yi dañu ñëw quatre. laajal ma ko arbitre kan la jox victoire arbitre ku mu jox victoire arbitre ku mu jox victoire. quatre la ñu ñëw quatre. laajal ma ko arbitre ku mu jox victoire. victoire bi loolu du victoire. ku mu ko jox laa wax non du victoire. kan la ko jox ko jox mais du victoire. kon xamante ma fenn kon xamante ma fenn nee naa la am na mbër yoo xam ne bu ñu nee cur seen lim di sori waaye man su ma nee cur dinaa lim ba fàtte ñu ma daan su ma nee lay la rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbër ñi commencé koo maa kaa roy man indi leen sang sang yi sant sama sëriñ Abdoulaye Wade sëñ Abdou Karim ak borom max max mi ak la Modou Fall ba si Youssou Ndour ndaxte ñii bokk maa ñoom damaa bokk si làmb liggéey na de bugaan sa bopp bugaan géey man dafay dale bugaan géey gëm sa bopp kii la kii bu xool bu ñëwee xoolal kii damaa bëgg revanche revanche laa bëgg revanche double moteur ñooy bëri bëri naa ko euh, waaw euh, Coen si musuñu laale mais lamb ju neex la daal noo ko gisee yow en tant que seen koo xam ne yaa leen jiitu ci làmb bëre nga kenn ki. waaw mais ni ma ko gisee mooy tey làmb ji ku ëpp concentration rek mooy gañ a làmb ji. concentration dal maanaam. làmb ji waaw concentration la laaj bàyyi supporters yi gérer sa bis soo daanee pare doo ko def looy def. am na ñoo xam ne dañ ne double moteur bu bëggee daan ko faw faw mu xeex ànd nga ci loolu. non double moteur ku ko double moteur ku ko xeexloo yàqloo ko làmbam. Ah. waaw làmb tay ji ku ko ci jéem a xeexloo yàqloo làmb parce que mënuwu ko mënewu ko des na lu bari su jéemee xeex mën naa jël coup bu ko arrangé wu. am na ñoo xam ne ñu ngi wax naan Quench moom jàpp ko arrangé il faut mu jàpp balaa bëri. Quench la xeex arrangé ci làmb ji. ci làmb tey. waaw ah. làmb tey ji il faut que tàngal ko ba mu tànk waaw su bëggee am dara il faut mu xeex ak booy bi juumloo ko ci biir bëre bi mën ko daan. waaw mu bëreeg moom jéem ko daan. kontaan naa ci yow. waaw double moteur li ma koy xalaatal li ma koy wax mooy. bu mu fi palaaka palaaka bi ñorul bu mu song cong mu baaxul. parce que ki muy bëreel mbëru tànk la waaw. waaw bëre bi na ko teg ci axe seer sawaay bu ne bëreet mu jàpp ko mbapat moom loolu mooy làmb ci waaw man nag li ma xam ci làmb nag mooy su fekkee jàngoo dóor ba làmb ji ñëw bul jéem a dóor dafa la nga jàng muy contact waaw. maanaam bëre bu bees daal jaru ko. waaw jaru ko làmb daanal ba pare noo ko daanee baax na waaw. mais nag sama émission ma nag yow nag xam nga. non loolu day am. waaw dafa waaw dafa war a am ko dama lay woo. parce que yow xam nga ni làmb daf ma war a jàppale. parce que dama sonn ci làmb jël suma alal def samay moyen man def ko ci làmb te làmb jariñu gu ma ku bëre neuf grands combats amugoo dara si làmb kon làmb moo la jëriñ mais jëriñoo goo si làmb. arbitre soufflé lool ci combat social yi la bokk diggante Sidi Diamaguène nag Garo Gare Garo Gare ngeen jàkkaar lool. si dee leen wan ginnaaw waa combat spécial la moytu congu mi dafa mën a song si di jàmm gën lool ñu la wax kon ah mëna ko wax de dafa bëreeg sama poulain ban poulain la dafa waroon a bëreeg caatu Daouda Fall caatu Daouda Fall papam gaañ ñu jox ko keneen waaw waaw mais baax la ko song gis nga moom gaaroo gaar waaw dafa mën a song gaaroo gaar maa man lool turu mu mag la waaw mais nag ma xamal leen. daanaka léegi combat yëpp combat yu mag la. boo xoolee. parce que booy dañuy bu ñu paree dangay xam ni ñii dañoo def ci ay. dañoo def xaalis seen. seen i combat waaw moo tax moo tax fi mu toll nii. jot na promoteur yi yokkal xale yu ndaw yi xaalis. waaye jot na tamit kon. sponsor yi ñëw jàppale promoteur yi. waaw sponsor yi ñoom ñun. ñun ci ñun la. mais ñun. bu dee meew fii lañ koy defaree. oto ñu koy jaayee fii. leneen orange nekk fi. leneen ak leneen ñooñu sa force dañoo war a jàpp ci business su Sénégal. mooy yoon waay. waaw parce que wala. parce que sénégalais yi jënd produit yi. état moo leen war a xuxutal ni leen boo leen fayul boo leen boo leen boo leen kiiyul boo leen jàppalewul business su dëkk bi. da leen tegal ay daan yoo ay sartu yoo xam sartu yu métti ci ñoom voilà wax na dëgg Maguette Seck wax loolu parce làmb soo xoolee nii nag xam ne facteur développement waaw parce que tey boo xoolee xool nga lamb ji mën nga ne promoteur bi mu fay bëri na te amul sa sponsor non amul sponsor combat bu toll ni double moteur Quench que fi mu tooy nii ah, supporters yi ñooy ñooy ñooy dimbali promoteurs yi ñooy dimbali mbëri waaw ñu ngi ñaan nag supporters yi bu ñu wàññi woon violence tuuti rek dañ ko war a bakay waaw buñ ko sax wàññi dañ ko war a ba lii dafa neex ko lamb jaa ngi daw ñëpp a ngi animé gisoo xuloo gisoo xeex mais suñu xuloo xeex rek lamb dañ koo yeb nit musu cee dee mais lu ci am rek te pourtant barki démb ci politique bi doorante ay xaañante lépp am na ci waaw mais waxu ko na ñun dañ ñoo ñun bëgg ñi ñu bëgg ñoo bëriwul moo tax ñun ñu war a defar suñu toogaay waaw boo bëree noonu da ngay xam sa bopp voilà noonu la demee mais combat bi combat bu neex a ngi nii. ba tey dara fa nag. waaw non mais mooy loolu ku nekk da ngay calcul bis yi waroo koo ñàkkee noonu. waaw parce que bis bu mag de boo ciy bëree. waaw bis boo xamante ni ñëpp a ngi toog di la seetaan. wallaay addinaa lay seetaan télé yëpp toog. war ngaa mën a xool li ngay def. arbitre nag nee na leen bu ngeen bëreewul avertissement day am Sidi Diamaguène. lamb ju neex la de. waaw lamb ju war a neex la sax bu ñu jàppoo gis nga. jàppantey loxo bàyyi waaye gaaroo gaar bu dee song bi la bëgg te siit gis nga gis nga oh Maguette Seck la nga wax gaaroo gaar wër si na song ma waaye baaxul mu génn ñu mu ngay dóor song la bëgg a def wala daa bëgg xeex Sidi song na ko taf na ko daan na ko Sidi Diamaguène song na ko daan ko kon Sidi mujj a song eh, eh, jël amul de déet waay tax loolu waaw mais est ah, way daan ko de kat appui la foog wala ah lu xew. benn tànkam bi genou bi lalu suuf. ah na suuf de. ah mooy loolu moom. waaw Sidi Diamaguène la jox victoire. ah Ronaldinho ngi nii. ci ci bëre Sénégal maa ngi lay bëgg. siyaar naa la sëñ Babacar si. ci loo ne. sant Serigne Babacar si. ana waari fisk. ñu nga fa. dégg naa sa taxaw na après ma dégg ñu da nga delloo avance. non delloo bi amul. Ah. amul daa am lu ndaw lu si laxasi woon rek. laqar ci Kounamba. waaw ñun ay mool lañ lu laqatoo dañ koy laqante. Ah. waaw waaw. kon yaa ngi Jamaïcain déggoo ngeen léegi. maa Jamaïcain déggoo nañ. lekk nga avance bi. yegg seegul nag mais déggoo nañ. Ah. waaw. Ziza nga nar jël de. Ziza damay siggee moom teerax moom. Pikine gii la dëkk damay siggee moom teerax moom. siggi ak moom teer ak moom. waaw xamoo li ma la nag ay wax laa la wax. ah man kay siggi ak teer siggi moom nii laa ci xam. waaw teer. arrière itam nga jógee nga jël gaal tefes laa ci xam. waaw damay rawanteex moom. la rek ak gaal kulungoo. mees njool la de. non Ziza lu ma sutee lu ma sutee Kélémasour Ziza sutu damay laaj te Petit Niang maa ko sut waaw wala déet. mais daa daan te moo daan Petit Niang. man Petit Niang moom ma daan yi dama koy daan bu neexee yàlla suñ borom. da ngay kattanu yàlla incha allah bu neexee yàlla suñu borom. mu taxaw rek. ñu bëre. ñu bëre ñu weccee bëre Ziza du ku may téye si bëre. doomu Pikine la de. man doomu Tëngéej laa de te dew mu lebu laa fukki penc yeex ñaaree mu wër ma judd ñu tànq si kaasub ataay si mbéexam génn mi jox ma ma naan boo daggee mbéex lay saf. moo tax lebu yëpp génn tey. waaw mais c'est normal. wel si bari ñu génn ñëpp génn. c'est normal parce que doomu Tëngéej la ñu amoon ñu beneen xale bu si doon bëre Baye Waly yàlla may ko waaw moo daan kon incha allah ni nga ba am na sa daanu. am na cinq combats cinq victoire six. six combats six victoire na boo naka booy jël. mais parce que am na lu écrit bu ñu wax kaay baaxa nga fa tamit di jël ay trophée rek. waaw mais nag liggéey la liggéey moo wóor. lamba ji léegi dafa commencé am kumba am nday kumba am baay. loolu. maanaam dafa xaw a commencé jéng. jéng waaw lu jéng baaxul kon nañ ko yemale da xam na Tëngéej dafa bokk si làmb. et pourtant yéen a ngi bëre nag. ñu ngi bëre mais dafa am ñoo xam ne bëreeguñ dafa am booy yoo xam ne dañ leen dañ leen war a teg loxo geesu leen booy yu bëri dëggal nag am na ñoo xam ne yàlla moo koy dogal siw du si nit yàlla moo koy def si doomu aadama ñooñu parfois dañuy bëre. Baye Waly mu ngi fii ci ginnaaw arobas mi dafa war a bëre. arobas waaw wax nga dëgg arobas dafa war a bëre. moo moo ci yëli arobas ak kan kéeli nga ne booy booy ñan ay daam seen daam seen est-ce que sa adversaire la yow it adversaire potentiel waaw suñ tàkkusaan ñu nag euh, rakku kii bi nu mu tudd rakku tafaatin bi Njaay Tine Njaay Tine suñ tàkkutaan xanaa waa Dakar dañ ko fàtte kenn fàttewut loolu Njaay Tine arobas taroon na lool tamit waaw dañu war a bëre nag Ndakaaru booba léegi bëréw ñu fi ñoo si boy mankaaj lañ fi gëj bere ñoo ko daan grand combat fii dañu obligé jël combat daaw bëre ko Thiès mais dañu war a bëre fii ay Dame Sène ay tafaleer Leer nañ ñëw ñu bëre ay Kewel ay Thieli boo yooyu dañu war a ñëw ñu bëre parce que ñun ñoo fi ne dañu war a ñëw ñu bëre waaw. Ronaldinho kontaan ci yow Jalaaw mais Jalaaw ci loo ne. maa ngi nii. Jalaaw temps yi da ngaa làqatu de. temps dama làqatu non. xam nga defarwaat quoi pour ñëwaat en force. fii mu jotee match niil nga fi jógee. niil bu metti sax parce que. combat boo xam ne keroog ay seen xol yi neexul ndax na nga xamuñu la ci boobu bëre. xam nga euh, nit ki du mën a wax lépp mais ko xool jalaaw bi ñëwoon keroog xam na ne état bi mu indi baaxul parce que yàlla mi ñu tiim xam na ne du saltel sax parce que aw ma defer mais blessure laa ko doon bëre waale noonu moo tax ma doon négocier combat pour mën si génne pour man a pare leneen voilà. te xam nga maa ngi pare leneen. maa ngi nuyu Sénégal yëpp nag. waa am na luñ may dee. sa ci ku mu dem. am na luñ may dee. Ah, maa dëgër na. kan man du ma jël lu nooy. Ah. dama bëgg bu ma ñëwaatee gaayam ne gongo. ñëpp ne gongo gongo rek. tàndar maa nekk ci laytan bi. bala combat bi tingoon na léegi arbitre soufflé yàggatul dara arbitre bi sifflé kenn ku ci nekk wóolu nga li nga liggéey mais ñun xooluñu Quench xooluñu kenn suñu mbër lañ xam double moteur te préparation bi ñu préparé ak moom du pour Quench kese déedéet dañuy ñaan yàlla mais ñu dem ci koom ci barke alxuraan ñu xooli keneen mais lamb ji tey jàmm lañ ciy wo lañ ci woo ñëpp ñu dem ci ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm mais na kële meer mooy ñun yàlla yàlla ànd ñun. boo xoolee ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo dara xewagul. dara xewagul gëdd gëdd gëdd eh te mag koy gëdd daw na jël ko lu xew ah dara xewul arbitre nee na dara xewul bu doon ci biir la ba tey tee mag sa ñàkk na waaye heureusement te mag si booy demati xamal ci li ngay dem te mag si booy demati xamal ci li ngay dem dara xewagul de dañoo jot a laale sàng moo tax sànniwaat na ko droite moom Tmax Brise de Mer yow bëre ji est-ce que gënu laa arrangé bon action mu rëcc leen Brise koy gëdd te Tmax serré la pataake ba dàq ko ak droite bëgg mu may ko jàmm mu seere ba pare waa ñaari mbër yi duñu bëre ñoom arbitre soufflé waat na combat ba ñaari mbër yaa nga ca waat boo xoolee Brise de Mer ak T-Max seen combat bii day daw na jël ko daw na jël ko T-Max génne ko a way a way mais père bour combat bi pour man heure bi waroon na jeex waaye ba tey man ta jeex waaw parce que xam nga euh, brise de sax moo dàq bëre. Euh, mais Tmax da koo sonal ci coup yi loolu la ragal. ragal ragal boobu mu ragal nag moo tardé combat bi. mais su ah, voilà gis nga ko. ah oui gis nga waaw xeex bi da koo sóor de trop. dafa dafa sóor bi. dafa sóor xeex bi moom brise de gis nga am yoo xam ne. soo ci bañee gaañu rek doo gaaw a gaañee. déedéet wax nga dëgg. père Omès. defe naa li Bourkhane wax moo am ci combat bi. mais effectivement Sakho Mbaye rek loolu ah il faut que euh, Brise de maire jël initiative. parce que initiative boobu mooy mu nungu dem euh, bi. parce que il faut mu jël coup. mu jël coup. arbitre soufflé na combat bi eh Brise jam na ko ñam na ko waaye Brise de maire na sóor ne am na ñetti avertissement te temps baa ngi dem kon combat bi am na nu muy a ah way ah, père Brise de Mer ngi xeex daw na jël ko daw na tibb tànk ba busulu wala war wër ndooma a ah, way a ah, way pour xan wadd waxoon na ma ko waaye rëccagul ne xale ba dina rëcc oh la ilaha illallah eh T-Max def nañu fi T-Max eh bii ko toloo nañu avertir toloo nañu avertissement léegi nag lamb ji day gën neex Brise de Mer day jël ay initiative waaw li mu ragaloon. waaw loolu ñemewaat na ko léegi. kon Brise de Mer yaakaar naa bëre bi moom comme li ñu wax rek moom daa ni loolu dina ko avantage mu ngi gëdd Tmax max def na benn genre demi flexion arbitre ay waay ñu ngi lewaatoo ba tey mais dara xewagul de. tey max xeex na une daw na jëliko ko tey max daw na jëli ko Brise de Mer eh daje nañu door na ko mu wàcc laa ilaha illallah ah, daanu waat na eh daw leen da koo door mu wàcc Habib danse am na eh Brise de def na affaire da koo door da koo door mu wàcc. laa ilaha illallah eh xale caaroy bi door mu daanu la ko def Brise de ngoongu eh wàccal waaw eh way waaw xoolal li yor Habib ke ak xànc yor wala ak xiis di moyes ak benn bant bu gudd lépp ci mystique bi ki yor benn fas di ko wëndeel moom ci loxo bi Double Moteur a ngi noonu Ibou Fall booy rëba say wax ak moom noonu mbër mu magay wax ak moom léegi dem ca géew baa des kaay wér kañ nga ñëw ci réew maa ngi nii de nekkoon nii moom yàlla mbiin baa ngi ci réew bi de réew mi moom yàggoo ci borom dëkk waa yàggu ma fi nag maa ngi doog a fi sax semaine non aw ma sax trois jours waaw ci lu ma leer ma. dëgg la yéen li ngeen ñàkk lu leen leer bariwul de. tey looy wax sa poulain bi nga ni woon muy ah, ki nga xam ne mooy Tmax. wallaahi yàlla rek moom ma tiim dañ doon xool nan la ñuy négocier mu bañ a bëree. tax ay wallaahi daf feebar ba munul dara. hémorrhagam bi li mu génn toll na nii dañ ko mujj solal kal ci wisaar bu ndaw pour mun ko ngemb tànk yi munul taxaw munul def dara. billaahi. mais foo toll. waaw sant maa ngi nii. sa avance ba. ban si. yaa euh, wa Bour Sine bu bawal. boobu dégguma promoteur yi la jeex na. jeexe ah waxu moo ko ne promoteur bee ko wax. yow da ngay bëre wala da ngay delloo xaas wala nu muy demee. maa ngi ci réew mi dinañu waxtaan coow li bari woon na bi ma nekkee ci àll bi yëgoon nañ lépp waaye dinañ woo suñu mbokk journaliste yëpp ñu ñëw toog ñu waxtaanee ko mais nag damaa bëgg lenn mooy lu waay waxoon na nga am ngor ba bu ci teggi tànk. na nga téye ca la nga waxoon ci kaw nag laa ba ci suuf lu ci waay waxoon ci mobile na nga am ngoru téye ci na yaa ko kon nañ joxante rendez-vous ba bés ba. ba bés ba. comme lu waay waxoon na ca dellu. bu lu waay waxoon na ca dellu. incha allah rabi bañ daje. jaajëf. promoteur la lan benn seer mu taxaw ci mu ngoongu taxaw ci benn seeru rabal ñu ngi koy joxaat beneen seeru. koo koy duubul waaye Quench mu ngay sotte koo ca wet ga Double Moteur yéeg na ci benn toq ba tey gën na ndaw Quench am na luñ koy defal waa san benn saaru non Equivox laay mujjee ndax moom nga yor kii suñu yëf la yow loo yor ñoo ko bokk waaye Babacar tey sama yaram dafa daw làmb ji vraiment neex na gis nga ñii nag dama leen a bëggoon a porter plainte far ñu ñëw samay xarit lañu xam ne wala xanaa wala Modou Boy dañu maa tooñ maak ñoom la nag yoonu kenn newu ci mais ñii dinaa leen porter plainte. mais Baba bu jógee fi fan la jëm. xale la il a de l'espoir lamb jàng ci kanamam lu baax rek lu neex ak discipline loolu dong la des na yu bari jéey war na ñëw jéey yii yëpp dañ koy àggale lamb daaw la duggaguñ ci deuxième saison bi waaye daal bëgg lu baax. yéen a ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak di féliciter ñëpp lii daal sama yaram bu doon may mayee bu damay ñaan yàlla may ma may décider damay ñaan ñaari mbëri yàlla bu kenn daanu yàlla bu kenn daanu vraiment ñaari yi ma gis sama yaram day daw ndax ku daanu tey mu métti ku daanu mu métti ci bu ma sañoon billahi dañu mat si nii dama yërëm ñaar ñëpp kontaan ci kontaan naa Fatika tero bima tisile matal pima pima fatiga pima ti sine matar ba jale ga amose fatiga katika kirobi mazisine matan wajale kamosaif katika kirobi mazisine matan wajale kamosaif katika kirobi mazisine matan wajale kamosaif Fatiga del wa bi ma disine matan ba jalil ka mo sey Jalbe wa primo, ma dar wa jalo.